asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar fi leen daan ziare di leen nuyu fi leen daan nuyoo muy Elvision Média ñu leen di wax ngeen visiter sunu sit internet www point elvision média point com ngeen télécharger sunu application mbir yu am solo ñu ngi fa. Euh, tey nag dañu ñëwoon indil leen seen émission bu bees ñu tuddee ko làmbi électoral pourquoi làmbi électoral mooy dañoo jëm ci ay élections élections yi ñu jëm nag foofu la ñu ñëw. bëgg cee waxtaan ak yéen làmb ji dafa sàjj mbër bu nekk di bàkku pourquoi ñu indi leen làmb électoral ndax làmb électoral dafa am ci suñu biir réew élection yoo xamante ni dafa war a ñëw euh, yéen ñëpp xam ngeen euh, ci biir élection yi nag dañoo am suñu mbër bu mag boo xamante ni nii mën nañ ko tuddee roi des arènes moom moo jiitee làmb ji moom moo koy organiser mom tamit mom mom CNG de la république non lañ ko mën a waye après CNG de la république bobu mom moy tan ay arbitre tan nako na ba pare mom tamit moo wiñeeku ñew fas yéenee tànn ñi mu war a ndax ci biir làmb ji daf ci am Balla moy le premier cas ñu gaday loko génnee ko dëkk bi dinañ ci ñëw fas yéene waxtaan lan moo tax ñu gàddaay loo ko moom Balla Gaye génnee ko dëkk bi te baayam nekkoon roi des arènes moom it mu am mbooloo lool ñu ne ko doo fi sëgg bëree ñu amaan beneen deuxième cas muy Modou Xarañ loo ku ne xam na ni am na mbooloo am parti bu mag bu mu bokk ñu ne ko doo sëgg bëree waaye moom yi moom mi nga xamante ni mooy roi des arènes di élect di organiser élection moom mi nga xamante ni moo jiite CNG de la République moom mi nga xamante ni moo tànn ay arbitre lan moo tax mu tànn yaaw jaal tànn gaynde tànn site ak beneen ancien gloire ni ñoom rek lay bëreel ñoom 4 ak moom muy cinq mbokk yi loolu loon bëggoon a ñëw waxtaan ak yéen dañ koo nar a def émission par émission suñ première émission nag dañuy concentre ci moom Jimbori yi moom mi roi des arènes avant moo doon roi des arènes roi des arènes bi fi nekkoon di maître a da ko mayoon sens bàyyi ko mu dugg ci làng gi amuloon doole bu tax ñuy wax amuloon xaalis bu tax ñuy wax amuloon mbooloo bu tax ñuy wax waaye amateurs yi mooy sénégalais yi jàppale ko wóolu ko ci ay waxam ci ay doxalinam ci yar bu mu wone woon daal di koy sànnil seeni licence mooy ay carte mu daal di falu waaye moom yi dafa mel ne bi mu faloo doon roi des arènes daa fàtte la ko faloon lépp lu luñ daan bañ ci jamonoy ancien roi des arènes bi moom Jimbori da koo indi teg ku ko neex moom Jimbori mu jàpp tëj ku ko neex moom Jimbori mu bàll génnee la dëkk bi ñu dem ba dara desu lu dul ñu war a tëggaat ay tournoi boo xamante ni day am la le 24 ah moom Jimbori nee na moom mooy xool ñi ko neex mu bëreek ñoom ñi ko neexul du bëreek ñoom waaye mun nañoo xaar beneen tournoi bi ñëw nga xamanteni mom du ci bok su boba dina len bal ñu dugg pour mën bok moy premier cas ñu gàddaay loo ak deuxième cas muy Modou Lo ñu ko rap tëj ci kasso bi est-ce que mom Jimbori am na droit ni ki ak ki mo wara bok ci élection yi est-ce que mom Jimbori mom mo wara décider à la place des Sénégalais est-ce que mom Jimbori mo wara a tànn sept anciens gloire ni len yeen yéen ay wax ki wara bok ak ki warul bokk te moom moo leen di fay moo leen di seeni kër di fayal leen seeni oto fayal leen seeni chauffeur ak seeni garde corps ndax ñooñu sañ na noo wax lu ko neexul yaakaar na ne Sénégal dafa mus a am problème boobu moom Jimbori est-ce que war naa jël arbitre boo xamante ni moom moo koy fay ni ko yow yaay arbitre sama doom nga topp ci sama ginnaaw su ma yëkkatee tànk di waaj daanu nga suufle suñ may waaj yóbbu ci saaku yi nga soufflé su ma yëkkatee yaawu jaal nag ba biir bi weex nga bàyyi ma dóor ko ci suuf léegi ñu leen di laaj yéen mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen laa tuddee les amateurs ci bëre boobu ñu jëm muy le 24 te ñuy ñaan yàlla ñu yegg si jàmm ak salaam est-ce que ñun sénégalais yi dañoo war a croiser bras rek bàyyi jimboor yi moom muy def lu ko neex bu ne kii mooy bokk kii mooy bokk su ne keeru bokk keeru bokk. moom premier cas muy Balla Gaye nga xamante ni dañ koo gàddaayloo est-ce que moom tamit waruñu leerlu ci ay mbiram ndax yaakaar naa ni bu fekkente ni nii da nga ni da taxaw bëgg doon roi des arènes bëgg bokk ci làmb ji da ngaa war a ñëw senegal xeexandoog nit ñi wàccandoog ñoom si terrain bi waaye maa ngi ci sedd ba wàccal leen ma ci terrain bi xeexal leen ma ba ba ma mën a ma mën a bokk ci làmb ji ma soog a ñëw bëri. est-ce que ñun amateurs yi ñun sénégalais yi war nañoo nangu loolu ndax yaakaar naa ni moom moomu di Balla gay di premier cas la ko déplacé Qatar yóbbu ko ba France mu dem renoncé ci nationalité France am waroon na koo mën a indi Sénégal gii mu ñëw ànd ak doomu aadama yi nekk ci naaj bi di taxaw ca buntu CNG de la lutte boobu noonu bu ñuy dem place de l'Obélisque mu ànd ak ñoom mais defu ko. légui lan motax momu tok fofu doomu jambour yi nak ñu bëgg leena wacc lo ci terrain bi man ma ciy profito di wax képp kuy sénégalais di jeune bu la dara jaral nga yëkëti xeer di dem di sanni bu la dara jaral nga yëkëti bidel naan da ngay taal bul gadul kenn jaasi ndax muso leen fe gis benn doomu ministre wala benn doomu président bu wacc ci terrain bi di sanni xeer wala benn jabaru président bu wacc ci terrain bi damay ko wala may sanni xeer ndax sama jëkër dedet te ku ci falu say mbokk premier numéro foofu lañ ko bëgg a deuxième numéro bi ñu fas waxtaan deuxième cas bi kon commentaire di wax ngeen abonné encore une fois ci Air Vision Média da ngeen dem visiter site internet www point ngeen ko lépp lu ngeen ci information ak lépp lu ngeen jërë ngeen jëf